wa rahmatullahi taala wa barakatuhu laay laay laay ngi nii ñépp ngi ziar yépp ngi sant yàlla mi nga xam ni moom may bi ñu fi jógee daaw ñu ñaan ko teewaat ren mu may teewe ren yàlla ñu teewe déwén bari barke maa dee bi saa lu fi def yàlla na ko yàlla nangu département bi sax mu ngi ñaanal ñëpp di ñaanal suñu xalifa yàlla ko fi yàlla yàggal ñaanal rakam ji yàlla na ko ñaari bàyyi si naa Isaa yi ak seen rakk yi fi nekk yëpp yàlla na leen yàlla kaleen yàlla leen yàlla jàppale yàlla leen yàlla dimbali defal ko taalibe. bismillahi rahmaani rahim bukki leen rek lenn ci délégation bi fi rotan bi délégation bi ci jiitu mooy la délégation bi jóge ci son excellence le président de la République Macky Sall mooy délégation gouvernement bi ki ko jiite le ministre de l'Intérieur monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome mu ngi ànd ak monsieur le vice président de l'Assemblée nationale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngeen ko lool fii ci keppaar bi mu ngi ànd ak monsieur le ministre Aly Ndoye ministre de l'environnement du développement durable et de la transition énergétique, Monsieur le ministre Seydou Gueye, le ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Diram Faye, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité de proximité, mu ànd également ak Mame Fatim Madame Mame Fatim Ba, le président du conseil de surveillance de l'ASEPEX, ak Monsieur Pape Maodo Diouf, le directeur général de la SPT, mu ànd également avec le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur Alhassane Sall le préfet du département de Dakar, M. Mortal avec le sous-préfet des Almadies, Pape Sérignon. Nous ah, faisons également les hauts conseils des collectivités territoriales, M. Alidia Dikao, Mandat Elagi Oumar Diem, mon au conseil des collectivités territoriales, le président des demandes du du Sénégal, Mandat également à Sohna Amikop, mon au conseil du collectivité territoriale. waaye xam ngeen ne appel ren bi dañu am invité d'honneur muy la euh, la république de Turquie l'ambassade de Turquie mu ngi fii am na ku ko représenté euh, monsieur Mohamed Ghassan euh, xam ngeen Turquie li fa xew fan yi ak Syrie la république sœur de Syrie muy tremblement de terre bi fa am ay doomu aadama yu bëri nekk ci seen bakkan moo tax tey jii mu ngi leen leen boole invité bi ñu ah, fekkee fi également l' ambassade d' Algérie loolu it monsieur Mokhtar yi yow teewal ci ambassadeur bi si ah, wàllu élus eh, locaux yi monsieur le maire de la ville de Dakar monsieur Barthélémy Dias ñëw na fi ànd ak délégation bu takku ah, ñu ràññee ci monsieur Aziz Paye maire de Fass Colobane ñu ñëw fekk fi le maire de Yoff monsieur Seydina Issa Samb xam ne moo leen dalal ci place bi ak le maire de Cambérène Elhadji Doum Pathé Mbengue ak le jeune maire de Ngor Mama Gueye Ndiaye a ñu am également ci biir délégation bi le maire de Thiaroye-sur-Mer le maire de Kayar le maire de Yeumbeul Sud ak le président du conseil départemental de Kër Massar loolu mooy ci wàllu élus locaux yi euh, ñu demee ci famille religieuse yi suñu waa kër Maam Borom Touba tamit nañ fi ñu Serigne Bara Lahat xam ne yàgg na fi yow mu ànd ak Serigne Cheikh Mansour xam ne mooy représentant du xalif bu Diof euh, ñu am également suñu famille suñu maam Ibou Sakho moom it doomam a ngi toog di Serigne Habib Sakho di xalif de Mame El Hadji Elimane Sakho mu ngi ànd ak le représentant de l' association euh, des doomu soxna yi euh, suñu wayjur également Serigne Maodo Cissé mu ngi toog si watu watu sang bi moom it mu jóge fii ñu miin ko lool ci kër gi Serigne El Hadji Dame Ndiéguène moom it ñu jóge ci xadaratul Ndiéguène di Cheikh Mouhamadou Mounirou Ndieguène di xalifa bi waaw bu ñu demee également ci Moustarchidine El Hadj Cheikh Tidiane Ndiaye ñu ngi toog moom moo fi teewal suñu mbokk waa Moustarchidine wala Moustarchidaat euh, dignitaire et notable de la communauté Lébu du Cap-Vert ñoom ñëpp ñu ngi fii euh, de Yoff jaraaf yi ñëpp ñu ngi fii ci njiitalu imam nga xam ne mooy chef de délégation bi maam Thierno Mbacke moom it ñëw fii di imam toogal ci sëriñ Modou Kara Mbacké sëriñ Babacar Diop jóge Tiwaawoon ak euh, imam Mbaye Ndiaye moom it mu ngi fi imam Cheikh Soub ak sëriñ Mor Walat de Louga moom it ku ko teewal fii di Cheikh Ibra Fall euh, Mbaye ak suñu famille bi nga xamante ne mooy El Hadji Banga Sylla nga euh, seen nga xam ne moom mooy borom tampon bi nga xamante ne moom la ñu joxoon sanga bi Seydou Maïssa donc sanga bi loolu mooy délégation bi ci dàq bi torota bi leer leeru Wakaam ak yëngal loolu tamit ñu ci jotaay bi kon nag salaamaaleykum Abdoul Aziz Diagne Abdoul Aziz Diagne ak leeru Malika moo leen doon def tànk yi loolu mooy microphone bismillahi rahmani rahim yéen maam li baax mu ngi lay di la sargal ñaan yàlla te yàlla yàlla gën a dëgëral taxawaay bi loolu nag ko Mouhamadul Mokhtar ñaanal ko yàlla yàlla dëgëral ko yàggal ko fi macha allah ba lii nga xamante ni moo teg ci responsabilité bi yàlla dëgg saa mën a yombalal monsieur le ministre de l'intérieur mu ngi lay nuyu jottali sama nuyoo ci seen tur jëme ko ci son excellence monsieur le président Macky Sall la def ma ne ngay jublu képp la ku rab góor nga lan la wax lan la defal mais yàlla nga lay gis ñoo ngi gërëm président Macky Sall bu baax a baax a bu tey yàgg na te ñu ngi wéy di ko def yàlla na am na mbégte ndax ñu ngi boole moom président xëy na sax bu ñu ko tuddee daañu Amadou Ba Amadou ah loo dëkk waaye am na taxawaay ci moom la ñuy ñëw le gouvernement dëkk waaye yow nag monsieur le ministre de l'intérieur ban na booleeg ci lool am ci yoon lool taxaw ci lool boole nag boole nag am solo. mooy monsieur le gouverneur de la région de Dakar mooy monsieur Sall moom moom mu ngi tudd CRD bépp boo xam préfet la ak sous-préfet yi mu àndal ak chef de service yi ak ñett lu ma koy waxee man su ma jàkkaarloo doomu Sénégal damaa yaakaar ni ku ci ne am nga yéene rafet pour def mais yéene rek ay at ñu ngi bëgg a yàgg fii ma taxaw dama naan ni ci lu lu maa ngi bëgg a weesu trente nangement ci samay waaj kon lu ma koy wax rek dama ko dem tuuti damay wax am na lu may wax kon ñu ngi lay gërëm bu baax xam ne li ñu ñu waxoon ci lii ah yàlla rek alhamdulillah ci li nga xamante ni seetlu ko ak yéen ci lu baax. léegi daal instruction yi ñu jot a woon ci kër gi dafa naa ni ñëw na seet si xalif général bi barkaat ci jënd xale bay def fëkk kon dafa dëgg ñun kër diine lañu ci réew mi képp ku jàmmal kër diine yi jàmmal nga nu noonu ku leen téye téye nga nu waxu nga la ñu nekk kër diine yi laa ci réew mépp fii ma taxaw billahi wa tallahi lu Sénégal am ci kër gi lañuy tiit ñun war nañu gëm leen ñu yorul dara ñooy ànd àndalu waxuma la ñun ñu yor dara kër gi lañuy laawal de réew mépp kon ku ñëw jàmmal leen dana wóor ni yaa ngi jàmmal réew mi te loolu la président dëgg dëgg depuis son avènement ñu ngi jéem a dajale ci kër diine yi ku ne mu bëgg laa dompal dara bëgg rek stabilité am kon kooku bëgg na réew mi dara loolu CRD bi ñoo ko moom ñun ñu doole loolu moo xam ci wàllu mu ak moom mooy que ne daañu ci egsi waxoon rek ci lu baax xam nañ li ngeen ci mën def ngeen ko la ca def allahu ñu nga koy toppwaat di leen. ñëw ci commune Darou Ismaïl tàmbalee ci la ville de Dakar na mais ñu ngi toog Hollande ah dëgg lu leer ñii te yàlla dénk ci Dakar bi di ñu guleet ci lu baax. moom xam na ma xam naa li may wax bàtt bi ñu sëriñ la. ñun suñu maire yi defe naa ni day sëy naa ngi nii toog moom yow bàtt bi fii fii nga taxaw na fa mën a bàtt bi day sëy naa sàmm. jaar ci moom it ñun Abdoulaye Diouf Sarr ne woon na fii def na fi lu nekk def ci lu baax. te bu ñu toog ñu président assemblée nationale teg na fii lu ne Sénégal suñu soxla defu kenn loolu dañuy mën ku bëgg a xam-xam loolu kii def na fi mu rafet lu rafet lu ne fii laa naan taxaw naan kaan jërëjëf man du ma takk jëfu kenn juddoo ma ci loolu naan ma loolu xaw ma loolu lu ma ànd lu maa bañ lu ma ànd nag ku ne xam na eh, ñoom monsieur le ministre ci les forces de sécurité ñu leen di ñaanal yàlla ku xool réewum Sénégal ak li ko wër lépp nga xool gars yi waxuma ci seen professionnalisme ñu kenn di werante waxuma seen dévouement pour seen réew bi ñu kenn di werante ñëpp bu xewul beneen ni ginnaaw yàlla loolu waaye ci leen lañ ci rôle lu rëy la presse ñu ngi nii ma jàkkaarloo ñii deme naa ne xool xool mbir mi ni muy demee la presse dans sa diversité médias d'État médias privés en ligne ak lépp ñi dañuy ñaan yàlla yàlla yéen yàlla a tout cas nous sommes satisfaits gërëm nañu leen sant nañu nag collectivement Koufour. su ma nee communauté bi dafa am lu leen téye le groupement central sama maam Ndiol Seydou laa ma doon yàlla yàlla yokk ay téye wala bët leeram. moo rëdd rëdd boobu woo seen Ablaye 1952. groupement central damay wax ni mooy administration communauté. yaa ma nootu ñu liggéey liggéey bu rëy na. ñoo jur ak fédération de Daïra ils sont là oui. douze mois sur dix mois xam ngeen ni ñun bi ñu toogee lépp fay ak seen gars yi waaye yàlla leen yàlla yëkkati bëgg nañ ci yéen bu ngeen toog ah am na loo xamante baax la ci ñun te moom la ñu ràññee kon baax la dina xaw a doy waar mais yéen a ngi gën a dundal lépp mais yàlla leen yàlla dundal jigéen la waaye nag jigéen ña ak ñeneen leen kër diine su la taxawee fii la taxaw ñoom ñu ñett la biddaa bi loolu mën na am ci diine bi par ñu ñooy ñen bu ku nekk su ma mënuma daagu Tiwaawan mënuma daagu Tuuba mënuma daagu Medina Baay mënuma daagu Thiénaba mënuma daagu Njaasaan mënuma daagu jël ak ku mën ci yéen kon fu ñu daago ma ne gars yi yéen daal ngi daagu seen ne waxuma yàlla yéen ñu mu des Serigne Abdoulaye doon def ñii demee ko noonu jëriñ Serigne Abdoulaye bi doon yëkkatee indi Serigne Abdoulaye boole ay xol moo ko ñoroon te xol yooyu yàlla moo ko boole moo la boole diine yàlla wax ah dafa yàlla nag sami'na wa ata'na moo ci war a nekk dama yaakaar ni ku jóg di tas këri diine yi nga ne ci biir diine ñi nga dox kon déggoo waxu yàlla kon dañuy wax ni kookaa kookaa leen di yàlla yàlla ni kaay leen ànd nga ne ànd nga yow yàlla nga amal affaire واعتصموا بحبل الله القرآن جميعا والإسلام ولا تفرقوا لهما بين كم يعلم kon ñu ngi am mbégte su ma ñëw ci mel ne parce que loolu ñu ngi def fii te ñu téye képp suñu bëgg a jot suñu bëgg ci kër gi nii. téeméeri Sénégalais yoo gis yaa quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci ay xol yu kër la ñu nekk ci réew mi kon it mag moo xamante ni bu ma ko waxee billaahi ci xadratul ilaahiya lañ leen tàmpee lañ yor ku ci ne nag ay waay suñ dana war a sant yàlla boo duggee ci nekk ñu yëndëm nga ne lay salaam ñu ne leer na kee ñëw dóoraat ñu gën na leer kee ñëw dóoraat ñu gën na leer gën kaw leer ci kaw leer leer ci kaw leer loolu mooy kër diine Sénégal gëpp suñu doom yi nekk bitim réew bu baax sant leen ci seen taxawaay ci seen lépp ci fii ak fa ñu nekk gërëm it suñuy imam gërëm suñu représentant xalif ñi fi nekk yëpp ku ci nekk ku ñu juum tey waxu nangam la dañu gërëm ñëpp sant ñëpp nga leen heure suñu xol sa gërëm sëñ moom lu baax xam saas ñu ngi yóbbante ci kilifa yëpp suñu xool seetlu nit ñëpp bëgg nañu ñëpp téye nañu ñëpp gis ngeen fii ma taxaw Seydina Limaamul Mahdi ngeen jàkkaarloo ndax Seydina Limaam bi muy am Seydina Isaa ku ko fekke ku fekke da ngay am Majoor ku fekke da ngay am Babacar ku fekke ku fekke ba ci di leen bàyyi moom lii moom fii leneen dama ko tumal mi ngi des kër gaa ngi nii monsieur le ministre wa tabarakallah loolu war a wax nañ ko dégg hmm? lu ñu war a wax wax nañ ko dégg ki wax sànq tudd na nuufu na kon yàlla bu wax waxuma muy olama yaat borom ndor bi tànk yeeg ba lu amul lu ñu yëkkatiwu ci yëkkati am na lu ñu yëkkati kon ñu Ablaye fii la daan taxaw naan fir bu ne waa yoo fa ngeen bokk sëriñ Ablaye ah bokk sëriñ la li ma amul man ah ñu nga nee toog fa tabaarakallaahu di leen ñaanal yàlla nag lii ngeen taxawee taaral gis bi parce que seen yëfe seen yëfe kon yàlla yàlla eh, yow leen bu baax a baax أقول قولي قولي هذا وأرحب مرة أخرى بسعادة سفير أو ممثل سفارة الجزائر جزائر المفترض بنا علاقات متينة ومتميزة نرحب بكم مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك ñu toog nag ak suñu bàyyi fay naa lii toog gis ngeen toog ak bu jëkk bi attention du ma du ma fii de ñun yàgg nañu toog ci lii waaw sëñ am rek dafa ñëw yar kon bu ñëwee toog fii ci jotaay mu toogee nii déedéet waajuram baay daan dafa naa ne bay lu bari xale yi war nañ ko xam man ñi dañoo bëggante woon TNT bokk ci li tëdd ba nga tëdd loolu moo ko mas a ne te boo fii sax loolu lan moo fi ne tey naa ñii ñoo bokk ci biir bokk ci biti ñeneen ñoo bokk ci biir bokk ci biti loolu rek moo gars yi ku ci nekk tey fa nga tey ñëpp ñu daje ca xadra ilaahiya xam ni lenn rek sëriñ ca doon na rek lu mu bàyyi lay jox mooy li ngeen fi wax sànq. ñu ne leen démb ndax yàlla du mu bindee nit ndax dafa am ñii da leen a bind ci ban wala ñii mu bind leen ci jara ndax dafa am ruu jama ak ruu ban inna nafsul taqiya aw nafsul fajira kon yàlla rek moo am solo ñu téye ko te ñu bëggante te yàlla tax te lii suñu li ñu téye ñun ñii wuyoo nangam nañu téye macha allahu diine ji diine ji ak chef yi du bay nañu tënk bu baax ci li fi kii bàyyi bàyyi laay bàyyi bu benn sëriñ ak ay Alxuraan ak sunna leneen nekk fi li gën a jafe ci àdduna la leen rek leen mooy sant ak i askan di def nii te yàlla li sax ci moom abdullahi aw abdullahi kon fii laa ilaha illa allah moo fi sax laa ilaha illa allah moom lañ leen rabbe laa ilaha illa allah mooy mbubb buñ leen boole laa tafaadula wala nangam illa bi taqwa allah fii li ci des nañ téye loolu ku ne bu ngeen fa jógee réew mi ñun ñoo bañ ay doomu senegal doomu diine ngeen jàngu baa nga nawet fa tabarakallahu loolu mooy instabilité Sénégal Sénégal ma ni li ñu yàlla defal ci suñu réew defal ñu ko moom yeboo ñu suuxat ka ñi ko ñàkk ñu koy wut si ñun bu ñu sàgganee ba mu rot xamuñu fu ñu jëm kon réew mi na nekk yàlla yàlla gën a yokk daal de am na fi yàlla ko yàlla gën a yokk ñi ko dëkkee ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla bala boole jàmm allahumma salli ala sayyidina barakallahu ala san wala yaa wala ñaa yépp ñu bëgg a jox nag ñu suñ ko yee alquran teeg si boom ñu wax ne Baye noor ñu ngi fi monsieur le Mer ñu ngi fi Youssou Ndoye damay jëlaat boo ko am egsi na léegi da nga gis ñëpp yàlla yàlla fay ñëpp ñu jëm ñu fi bismillah yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani sëriñ bi sëriñ Mame Libasse man ak délégation bi ma àndal ñu bawoo fa président de la république son excellence Macky Sall ñu mën ci lim ministre bi nga xamante ni moo yor wàllu environnement bi di Alioune Ndoye yor du nekk ci sama wet te ñu dénk ko lépp lu jëm ci sécurité de proximité ak protection civile muy Birame Faye ñu mën ci lim le ministre conseiller à la présidence Seydou Gueye mën ci lim gouverneur Dakar préfet Dakar ak sous-préfet wu waaye bi ñu yegsee fekk nañ fi ñu dalal ñu mel ni dafa taxawee taxawaayu ñaari tànk waaye bokk ci délégation bi muy Abdoulaye Diouf Sarr vice-président de l'Assemblée nationale waaye bokk fii ci gox bi yàgg fee ay ndombo tànk ñu ngi ànd tamit ak président conseil d'administration ICS di Thierno Ndiaye ak président conseil de surveillance su ACPEX muy madame Fatoumata Bagnan ànd tamit ak directeur général ASPT muy Pape Maou Diouf bi ñu ñëwee rafetlu nañ ko te fekk nañ leen fii mu nekk suñu ay mag waaye nekk moo xamante ni tamit ñu ngi ànd ak liggéey bi son excellence monsieur le président de la république Macky Sall te pare fële au conseiller muy imam Omar Diène le président Aliou Dia ak ami amel topp bi ñu ñëwee tamit sëriñ bi fekk nañ fii ñi nga xamante ni lim nañ leen sànq ñu bokk ci demandrement wu état bi ñu bokk liggéey liggéey bu rafet bu ñuy waajal appel bi lim nañ leen léegi Sénégal état unitaire la état unitaire décentralisé la gouvernement bi dinay taxawal askan wi am baat bu jugee ci son excellence monsieur le président de la république à travers le suffrage universel waaye ñi nga xamante ni ci gox goxaan yi tamit ñoo fa askan wi ay banqaas yeen yu bokk ci état bi loolu moo indi décentralisation ba na fekk ni ñu bokk ci état boobu ñu ràññee ci kii di Barthélémy Diaz ràññee ci kii di maire Yoff Seydina Issa waaye ràññee ci maire Cambérène Doul Paté ak maire Ngor maire Wakam ak maire yi jógee Malika ak Thiaroye sur Mer ñooñu ñëpp ñu ngi jël ñoo ñi gën a tedd ñoo gën a sell di ko teg ci loxo Mame mu jot lil bi di Seydi Mouhamadou Mokhtar Laye ak njabootu Mame Limamou Laye gépp di bi ñu yàlla sant di ko teg ci sa loxo muy asalaamu aleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuhu ñoo nañ fii ni ma ko waxee léegi teew ci appel bi nga xamante ni ñu ngi dëppoo ak téeméer ak ñeent fukk ak ñetteelu anniversaire ginnaaw bi suñu maam ju baax jooju di Seydina Limaamu woote woote woon woote bu rëy boobu ñu woote woon te kenn taxu ko woon a jóg lu dul jaam yàlla yi ñu ràññee ci nit ñi ak jinne yi ana ci ñan la leen woo daf leen woo ngir wommat leen jëmale leen ci borom bi yeesal li nga xamante ni moo fi jotoon a jig ñi ko jiitu woon liggéey ko kon su fekkente ni teew nañ fii gis wax ji rafet ji Seydina Isaa bu suñu bay Ablaye Sow wax léegi jibal bàq ji nga xamante ni jóge na ci kër diine yi dañ ciy sukkandiku ngir wax ni ñu ngetu am leneen na jël waaye li ñu am Sénégal doy nañu digaloon mooy digal nañ fii léegi bàkku toolam mooy Seydi Aji Malick Sy doomam bu baax bi di Serigne Khalifa Ababacar Sy radiallahu taala anhu dafa am lu mu waxoon bu nit mësaan na ñëw ci moom ni ko àll de nat ka ñee mat mu ni aha kañ àll kañ mat naa ñee mat ndax àll da ko amul waaye ñun ñii di Sénégal mën nañoo ñee ndax buñ la yàlla nuur Seydina Limaamu kon loolu ñu teg suñu tànk suñu mag ñu baax ñi nampal ñu ci teg ci suñu tànk buñ ko teg bu mukk ba pare ñu leen di teg loolu nag mooy lislaam sama xarit di suma yaramam sutante ñu jëloon na léegi téléphone di Seydina Mamadou Lamine Laye dafa wax keroog wax bu am solo mais tarixa yi ñu koy wax plurielu arab turu ay yor la rek mu ngi mel ni nga bëgg a ñëw yokk dàmbalaay yi amaana mën ngaa jaar ci géej gi ñëw mën ngaa jaar ci jéeri di ñëw waaye ñëpp fii la ñuy sooyee muy bérébu Seydina Limaamu Laay xam nga son excellence monsieur le président de la république Macky Sall xam moo tax lépp loo xamante ni comme diine yëkkati na ko fii ci Sénégal mu bokk ànd ceeg ñoom liggéey ko ak ñoom ba noppi xam ni dafa yore wàllu adduna bi waaye wàllu jikko yi ak wàllu xol yi yéen ko yor te bu doon wërsëg bi nekk ci adduna yëpp téew na fii ci suñu réew te xol yi baaxuñu jigéen yi baaxuñu du am njariñ ndax bëri na ay réew yoo xamante ni ñoo ñu ëpp gàncax bëri na ay réew yoo xamante ni ñoo ñu ëpp meññeef bëri na ay réew yoo xamante ni ñoo ñu ëpp wërsëg waaye mënuñu koo jariñoo ndax jàmm amu fa. moo tax damay rafetlu thème bi nga xamante ni tànn ngeen ko muy paix et développement selon les enseignements de Seydina Limamou waaye nag loolu buñ ci taxawee tuuti dinañ gis ni Seydina Limamou moom loolu ñëpp na ci ndaxte ki la jàngal ni bu demee sa turist jàpp sa turist xoolal say kër nga dem kooku ñoo jàngal non violence laata ñuy xam Gandhi laata ñuy xam Martin Luther King loolu waral na lii nga xamante ni son excellence monsieur le président de la république Macky Sall sumb na ko ci këri diine yi muy programme de modernisation des cités religieuses doxal ñu ko ba yëg si fii nga xamante ni mooy Yoff prévôt bi ñu nekk su wër bi ñu ñëwee keroog directeur général AGETIP mi ngi ko koy présenté di ko wax finition yi fi ñu toll ak programme Promoville bi nga xamante ni bu noppee dafa war a def lépp li nga xamante ni mooy dox bi ci loolu la nekk ci loolu lay wéy moo tax fële tamit ci Cambérène bu rafet bu sell bu mag gën fa def nekk ci wetu bérébu Seydina Issa loolu daal mooy li nga xamante ni waxoon na ni su ma ñëwee naa ko séddoo ak yéen dina sàkku ñaan ngeen jot ñu ko ni ñu ngi sàkku sëriñ bi ñaanal réew mi ñaanal réew mi mu am jàmm ñaanal réew mi mu am dal ñaanal réew mi ni ko sëriñ Abdou Aziz Sy Dabakh daan waxee suñu borom tappe xol yi yàlla sotti ci sutura sotti ci xéewal sotti ci naataange wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuhu jërëjëf monsieur le ministre ñun ñëpp ñu déglu si ñu ñaan li baax ministre Babacar mu ñaanal ñu dañoo yàgg fii la Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre nga yàgg ci jëf te bu dëgg am na lu ko fi jiitu def fi lu rafet kenn warante wu waaye nag boo doon def nangam wër cant boobu ni kër gi ak njaboot ngeen gis du génn lu ñu ci ci biir réewu Sénégal yi wax nga ko sànq yàlla du la defal ay ngëneel ci sa réew ay nangam ci ay kilifa yu baax ci sa réew xamal ni sa cër boobu cër boobu la yàlla am na ñu bëgg cër di nekk fii tey ngir seen société dal yàlla defal kër réew mi jaare ko ci kër diine yu baax yi tey kon tey bu fekkente ne am na ba patrimoine bu Sénégal waroo mën a jël bu ko neexoon sax tey mu jaare ko ci bitim réew kër diine ci xamante ni moom bi ñu jëlee jëw nguur gi di doon jàmmali kër diine yi am nga boo tudd sànq nee nga nangam te loolu du fii ñu ngi koy jéem fépp devant ci biir église yi parce que Sénégal foofu kon loolu tey bu ñëwee nga taxawee taxawaay boobu génn fi ñi ñun ñuy ay góor la ñi ko sëriñ bi defee lii ngay def waaye waaye dàq ko moom nga dàq sax xeeti njàngaleen na rek ci lu rafet xam ni fii benn say moo fi nekk te li ñu ràbb nag kenn rek la mooy yàlla ñun xaw ma ñoom ñu jig ñun ñu ñu génne ci laa ilaha illallah def yaram leen loolu rek ñu jig te nag nangami nangu li yàlla def ci ku ne monsieur le ministre taxawaay bi ni taxaw nga fi ak ñi nga àndal njaboot naa nga mën ak laay ñëw ma nanga ma nang bu ñu wax sànq rek mooy njaboot gee fi ne ñeneen a ñeneen a ñeneen ñeneen a ngi noonu kon du ñu ñun ñuy nangam jëf mucc ak ma président ni ko ñun loolu ma de am na njaboot gaa ngi na yaatu nañu lool loolu nii ci mbaaxu yàlla yaakaar nañ ni bu ñu nee li ñu fiy tabax te ñëpp am jàmm wallahi kenn duñ ci jiit loolu naka def ci boppam bu baax ñaareel bi mooy ñu bokk la dafa am ci kenn yu mu toog dañu bàyyi xel bu baax ñi nga xamante ne macha allah ñu nga ca feneen parce que cohésion sociale moo mën a téye réew mi moo xam ci jàng bi la moo xam ci ñeneen la tant que réew maa ngi am jàmm ci loolu nañ ko téye ku xool li mu wër di nga xam ni loolu moo fa war a mën a nekk kër gëm ba ngeen toog fii yaakaar naa ne jàmm comme ni ñu waxee sànq ci loolu boobu def na ci jéego yu bare bare bare bare bare dindi ñoo ngay ngay xool fii sànq kilifa yu baax yépp jëlal Sénégal Sénégal boobu ñu jël tey ci wàllu tarixa bu la neexee nga jël ñeent tarixa tijaaniya branche ci biir bari na xaadiriya branche ci biir bari na laayeniya muridiya waaw boo doon def tey Sénégal bu ne aw ma bokk nga xam ne doo ko ci ne am nga fii maam am nga fekkee am nga fekkee loolu la yàlla defal Sénégal comme suñu këri diine yi xar la la support la boo xamante ni réew mi war na cee mën a toog war cee mën a liggéey lu rëy monsieur le ministre daayira ñi ngeen di gis nga nekk ci ay mbir parce que fii la gën a gaawe ci lu rafet ci lu nangam yaakaar naa war nañoo amal beneen gis-gis sant ci ñii war a joué rôle bu nga xamante ni dina bokk ci réew bi jël di gën a gën stafet bu Sénégal parce que ñii ba tey yàlla mën na koy dugg ba tey message ngay dugg te c'est important. dugg nag ay nangam pour nit day def loolu buñ ko waxee ci xeetu yar la bu gën a gaaw parce que message diine fi ñu toll tey fi ñu toll fi ñu toll laale ak ku ko ko mën a wax ci adduna. nit bu préparé boppam yor armam ci nangam dina préparé yooyu tam arme yor kañ bu ngeen ko dóorante mooy di nga am loo téye yooyu tam fàggu sa njaboot préparé sa njaboot te nag message yooyu ñii altine samedi bu jot ñu ngi jàkkaarloog jàmm yi te yaakaar naa ne message buy yar buy defaat delloo si yaram mag yi delloo si si nangam ci ne macha allahu dootu naan te du teew la citoyenneté gën fee dëgër réew mi na citoyenneté rek gën a dëgër waxtu wu gën a dëgër li fi yàlla rotal ci yiw yàlla may nu xelit ñu mën kaa dugal ci poosu gaa yi allazi ataamahum min juuin wa am donc démb yaa ngi leen yéen a leen jëm ñaajoo ci ren bu ñu woon sur la sécurité alimentaire min juuin wa amanahum min xawfin insécurité moom ñu ko def ñun juróom bu ca Ibrahima ba mu ñaanoon ñaan na yàlla lu ñu def ci poos yi waaye ñaan na yàlla bu sécuriser poos yi ak ñu yor poos yi kon loolu rek xëy na fi ñaan yàlla monsieur le ministre et yàlla nañu fi daje ay ati at et suñu kilifa yu baax yi nga ko dalee ci suñu xarit sëñ Mouhamadou Mokhtar ak njaboot gi nga xamante ni ñoo fi toog ñoom ñëpp yàlla defal ñëpp jàmm defal it jàmm kër diine yëpp la ci réew mi devant ka mu ngi devant que période Sénégal rek yal na yàlla gën a tàppoo xel yi allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam ñu si des nag sëriñ bi am na ñaan ku ne xam nañu Turki am na lu fa xew ci jamono yi passé ku xamit président Erdogan ci taxawaayam taxawaayam ak dafa naa ni loolu lu gàtt gàtt ñoo ngi fi ay yoon yoon réew mi dafa naa ni bu Sénégal jël na am ñu fa yóbbu dafa bu ñu ñëwee tey fondation Maarif ngeen nekk seen ambassade seen ambassade ñëw fi toog fi tey dina rafet ñun tam suñu communauté ci kilifa yi ñu yëkkati ñaanal leen maanaam ci ndigal xalifa ba ay garagam ci ndigal xalifa ba moo joxe ah ñu ñaanal leen seqaloon am ñoom lu baax te seen yëpp di génn cadre Sénégal parce que ñun ci cadre bu légal rek nañu liggéey et dans la légalité kon borom sëriñ bi moo def ñaan boobu et vraiment ñu ñaan yàlla loolu ngeen sëkk lu dëkk ak ñoom yàlla na ci yàlla def tawfet mu defal leen ñaan ci la nga xamante ni moo li daal suñu sant ak jërëjëf sëñ Mor Mor Libaas ci euh, conférence bi nga xamante ne macha allah ah defal nga ko lan la suñu mi nee na bismillahi rahmani rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sëñ bi moom libaas moo yëkkatee kàddu jiital ci yàlla suñu borom xam naa ni fi war a wax lépp Seydina Ibnu Abdullah wax na ko tënk na lépp rafet na bala moo wax dara da waral yàlla ci yéen mën a démb mën maa weex démb maa ñu tey mandargaal kayitam ci kéemaan ya lu yëg ak yu maanaa ya taxawal fi diine kàddoom dañu te téeméer ya ak ñeent fukki at muy jëm kanam xeexal na yàlla démb xeexal ka tey bu musaa dégg lépp lu di bokkaale xeex na ka bu saa dégg xeexal diine xeexal jàmm moo rasulillah sallallahu alayhi wa sallam njabootam enquisé àdduna dem na ci baax yar ba mu def ci waa këram ak jullit yi yar booba nekkoon sa ñoom moo taxoon ñoom ku ci ne nag jalkat yi ñu ne la ab laayeen waa kër Seydina Limaam waaye mu def lii kon nag comme ak fàttaliku la zikra la kaddu boobu waaye fan nga seen baas see mi ngi koy fàttali àdduna bi yëpp bu leen ooy li ko borom waxee woon loolu mooy suñu yóbbante ci yéen loolu la wax na nga ko am ñu dégg ko ñëpp dégg ko moo yore tam laa ilaaha illa Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lépp mat na soo ñu wax la ka léegi ci li na war a tontu loolu ak lépp lépp rafet na ko tabarkaal bi waaye day waneef ci ñun li mu waxoon man kay fàttaliku téeméer ak ñeent fukki at ñetti at ñu bañ a teqal ko ñu ko fàttaliku ñëpp te oowuñu ci ñëpp sangam nee na loolu mooy li ñu njëkk a fàttali ñu ne waxtu weexat waaye nag mas di woote nee na li ñu waxtu jii mas di wax ban na kaba li ñu dëkk sax ministre bi wax ka wax ji yàggal moo ko waxoon nee na de ki la dab dog sa kuuf bi la tasaaroo ngay soog mu ne bul fa bàyyi fa jàngat ba leen koos wax da ngay billaay sama borom mu nga yël laay lii moom laay waree àdduna du wax ni nii bu ma leen ci yàlla waaye du ma war puso du ma ci sama loxo maanaam jàmm laay wax du ma yor puso ndax moo gën a man bàyyi laa di ma ko dinaa woo àdduna bi yëpp si jàmm man li ma am dëmbaloo ma nga tax a taxaw jeeg kon nag ku woote fitna bokkoo ci moom bokkoo sax sama borom ndax sama wax na laay ko si bëgg lu dina wala lu dëkkul sax sax moytu leen moytu leen fitna boo xam ne boo di ko yewee dina ci yem rek te dem ku ne wax ku ne nit ki nag balaa balaa jàmmal nit la jàmmal boppam loolu moo nu manqué ñoo ñu si jàmm waaye ka toog ñoo ñu si jàmm jàmm lu ko fa ñàkk jàmmal sa bopp mooy la loolu ka dee sant la kay say mooy waaye jàmmaloo sa bopp waaye day jàmmal keneen ndax mooy ko fa mu la jëmee fitna la fitna ba àdduna la ak fitna ba àllaaxira fitna ba àdduna weesuwul sama borom ba teg la day yenn ko lim la teg ba yóbbu nag ñëw di ñu si jàmm nee na juróomi mi diine yàlla wàcce yëpp boole na ko ci mooy ñooñu ñoŋal suñu bakkan ñoŋal suñu diine ñoŋal suñu xel ñoŋal suñu alal ñoŋal suñu deret am nañu sa dolli ñoŋal suñuy der sax bi ne lii ku ci ne dañ la digal muy farata ci yow nga jàmmal leen jàmmal leen mooy nga ñoŋal leen bu leen bàyyi ñoŋal leen ñu topp seytaane topp bakkan bu boobaa jàngaloo sa bopp yow bay wax keneen loolu nekk ci jàmm loolu jàmmal sa bopp ba noppi bëggoo keneen ci jàmm jàmmal sa bopp mooy la ma woote bu bëri suñu bakkan bu bëri ak suñu bakkan tekk fi yàlla teg ba noppi ñu door a am jàmm ci jàmmal sa njaboot demal bi ci boo gaaw a jëli si njàng. bu waay nee na nga jàmbat sa bopp. mooy nga ñëwal sa bopp kenn. xeex door a woote. mel li nga war a mel. ni ko door a woote. ala kulli xel. ku woote fitna. waaye sanga bi ne yàlla jàmmal la. nee na loolu du jàmm de. loolu bëgg a jàpp. loolu bëgg a jàpp. moo kii mooy yàlla. yàlla na xéwal. ñoo yàpp. ñoo ñaar ñii. bu ñu ñëwee. gën a si la. bu leen ubbil. moo di. mooy yàlla bu dëkk. ak xéewal ku dëkk. nee na ñaar ñi bu daan dee. bu leen dalal. yaa ngi mooy yàlla. ku ko seetlu sa bopp. xamal ni. sa benn tànk. mu ngi biir sa bopp. ma ko war a fekkee. sama borom. tegal na la fii. ñu ngi fii rek janax. min xaytu laa ya'lamuun wa umli euh, euh, wa umli lahum inna kaydii matiin sama borom ba nee na. sama borom ba nee na. xam sax naa leen taxal. kii oset. noonu muy def. loolu mooy siglaaj. ndànk ndànk rek. ba ma jàppal la. yaa ngi mooy yàlla. sa xéewal mi ngi yokk. yaa ngi am yaa ngi am yaa ngi am lépp. wér na jàmm. kon nag nit ki. bu seetee ci boppam. ñu dafa boole. mooy yàlla. ak alal bu nga xéwal rek te xam ni tëgalul ko fii te mën ko jàppale kon nag laay wur ma taal képp koo xam ni dafa bëgg jàmm loolu ko liggéey réew mi nag képp kuy woote jàmm ñëpp ànd ak yow kuy kuy woote lu dul jàmm ñëpp la wax lu mooy te li waroon sax mooy ñu xañ la jàmm ndax ku xañ nit ñi jàmm nan la war a xañ jàmm ku xañ nit ñi jàmm fii ci àddina yàlla dina la xañ ëllëg ca laaxira wallaahi nee na dina la xañ nga ne loolu nag nga xam lu dul di yóotu nga ka jaar ci jàmm lu nekk ba ka téye nga ka téye ci jàmm lu mu bëgg a wax nag bu la yàlla dégg nga bëgg kaa téye bu ci fitna loo yóotu lu ne bëgg saa jot jaar ci fitna pour jot ko suuf si yàlla ak bind rafetal ko sellal ko sagal ko jàmm boo ko nag yaakaar naa ni sóoru nga xam ni ku ko sóoru dundee rabbul alamin waaye sanga bi nee na loolu mooy lu doon wala doon ñaan wonkati tolol waawi ñaan ci réew jàmm sababu tadi alayhi salaatu wa salaam waxoon na demani tatamannaw liqaa al aduw wasalu llah al aafiya bu kenn ci yéen bu kenn ci yéen bu xeet moom na ngeen ñaan yàlla jàmm loolu leer na message bu leer bu xet noonu ma ni da nga jox rendez-vous ñu war a jàkkaarloo mu ne nag mu leen ñaan yàlla jàmm mu ne jàkkaarloo ñu nekk di kàddu suñu borom mu càmmee ndigal charte ya daje def ko yàlla taxaw ci suuf moo ci amul ndigal waaye bu ko def loolu moytu di comparé àddina ak diine loolu moytu di yemale kiw àddina ak kii dox bu jënd di yëkkati kàddu suñu borom nee na loolu ay njuumte la déedéet ay njuumte la yàlla daal ay dox di yëkkati kàddoom saxal jàmm kooku laa dal ànd nag keneen ñun nag loolu la ñuy wax waxul si ñii waxul si ñële ñun ñëpp a ànd jàmmal seen bopp jàmmal seen njaboot jàmmal mbedd mi réew mi am jàmm réew mi nag di ñaan nanu ñaan bi kenn ku ñu xëy jàmm yàlla na yàlla puus la sori ndax nit ñi dund si jàmm loolu rek mooy suñu ñaan bi te kenn nag mënu koy yàq mënu xam loolu te mu yóbbaale ko loolu rek mooy lu bëgg a yàlla na yàlla dafa jàmm fii nag jàmm laay la tudd alhamdulilah mooy jàmm fii jàngale na lu bari jàmm rek moo fi mos jàmm jàmm jooju nag yàlla na mu sax sax si àdduna bi suñu borom lu koy suur te ne ndax suufam si ko dina ne leen moom ëllëg incha allah te fu lay tàmbal ci àddina loolu lépp nag loolu te bàyyi xel jàmm te liggéey ko te moytu wax te moytu fitna sa nga ne képp xam ni yaa ngi taal fitna taaloo ko ci kenn si sa bopp pare nga kaa kon nag sooke bu ko si yenn yi moom sallam wax na ni على قتل المسلم ولو بسطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آية من رحمة الله. nee na képp koo xam ne yaa ngi suur ba nga xam ne. dimbali nga nit. wuuteel ci genn wàllu kàddu. ku faat ba kenn. bu boobaa. lu nga daj ak yàlla. mu bind sa diggante ñaari bët yi sa jëm yi. kii de ku naam si ndar ma ne yàlla. naagul si yéen ma ne yàlla. moom naa laaxira yaa ko waroo fa dara. kon nag laay mën loolu mooy message bi. boo dem na tamit àddina fàttali leen woote bi fàttali leen jàmbu solo si moom fii ci àddina kon laay ma taal loolu la ñu tëjee ñu ñaan ñu ko sangay waxe ci xew-xew yi am ci àddina bi xew yi nga xam ne yu jul la ñu ñaan ñetti fàtte di dexlaas di salaatul fatiha pour fasale leen ci wala ci ni ren basaan si ñëpp waxtu bi kon nu boole ñaan yëpp fa cere moom ñu tuuti ak sëriñ xew-xew yu métti fa ñu ñaan leen yàlla suñu borom ba si a dem ñu yeggal leen mu defal jàmm ñu si defal ko àddina bi yëpp waaye itam ñu ñaanal suñu réew yàlla def ak tarixa islam yëpp ak mboolem jullit yi amul jàmm ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salaatul fatiha bismillah amiin yaa rabbi amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin yaa rabbil aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin hurmatina ilaaw النبي صلى الله عليه وسلم على هما صل على يا رسول الله يا حبيب الله سيدنا محمد وسليم Thank you. ونرجو لا إله إلا الله لا إله سيدنا رسول الله لا إله إلا الله رسول الله لا اله